لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Grand professeur d'université, le grand médecin, c'est Serigne Saliou ñun médecin dañ lay diagnostiqué jox lay analyse nga dem defi analyse nga dem defi yooyu sëriñ bi day toll Touba xam ne tuma taalibe bee di sëriñ Issa Diaye feebar na doo ko ko wax de moo koy yëgal bopp te di defal si rajo saa defal si la scanner defal la IRM si saa si bi pikiir la jox la say garab si saa man foofu laa jaar ak dem naa bu am fu benn feebar boo xam ne ñu ngi koy naan wooy la maladie de base d'eau. la de la maladie de base d'eau am goitre sa bot génn man mi man mi ma feebar suma soxna. moom ma njëkkee wax ni soxna ne ne moom ma njëkkee wax ni sa bët yi day génn ma dem seeti professeur Robert Ndiaye à mu nekkoon chef de service fene euh, Dantec ophtalmologie mu ne ma effectivement bët yi am nga lu ñu naan exophtalmie bët yi génn yi mooy bi mu xool suma yaram ne ma daa mel ni danga war a dem seeti un endocrinologue ma dem si docteur Aumbo Kane mu xool ma nee ma daa mel ni yaa ngi am maladie de base de débutante mais demal pasteur nga defal ma analyse yi bu ma génnee si consultation boobu nag yëg naa ne ah man nag feebar na kon xaar ma war a dem si signe bi yéene dem si signe bi mais ma bal bi may laata dem si signe bi <laughs> la ma signe bi faj dama am benn xale benn benn suma benn xarit Abdoulaye Diallo un jeudi un jeudi un vendredi matin à huit heures la ma woo nee daal biig dama gënt ñu ànd ak ndem dem seeti siñ bi si gàttal bu ñu demee siñ bi da laa ñaan ubbi sa bët bi tufli ci ñaanaan ubbi te waa ji nag xamul ne waxuma ne ko dama feebar. waa ji waxuloo ko. ne sama ko ne ko ma ne damaa feebar. ndeysaan dëgg la. daa gënt rek dama nit li gëntam nee ma damaa bi si gàttal. mu gënt gis sëñ bi ubbi suñu bët bi ñaan ci tëf ubbi bët bi ñaan ci uf tëfli ne ma ngaangal ma ngaang mu ne mu ngaang nga ngaang mu tëfli si biir gémmiñ ne woon wonn ko ma wonn ko ma ne ko bañ dañu dem si sëñ fekk amoon ay yéen dem foofu mais bi ma àggee si sëñ bi soxna si aram sëñ ba léegi nangul ma ne li gént bi dafa ne maanaa gënt bi nan yàlla na ñëw si yow te ànd ak tawfiix mu ñibbi si jël résultat ya gis ne maanaam taux bi suñu waree nekk ay ay dix maa ngi si ay quatre-vingt-dix cent donc hyperthyroïdie dem si aw aw mbookan yóbbu ko résultat yi mais nag yëg naa ne si ma bi ma ñibbisee c'était un samedi bi ma ñibbisee bi ma ñibbisee si week bi yëg naa ne daanaka man wér naa parce que li ma doon yëg si sama yaram aussi ko ma dem si soxna si jël résultat yi wane ne effectivement sur le plan biologique j'ai la maladie soxna si xolaat ma ne cliniquement gisatuma si yow dara cliniquement waa feebar bi cliniquement mais li ma jaaxal mooy résultat yi nga génne wane na ne effectivement yàlla demal defaat résultat analyse ma dem defaat résultat yi affaire bi wàcc kon sur le domaine de la médecine dans le domaine de la médecine c' est un grand professeur c' est le professeur des professeurs Serigne Saliou c'est-à-dire en fait c'est de l'enivrement mystique si nit dangay toll foo xam ne say raisonnement dootu bokk ak raisonnement nit ñi sëriñ bi si suñ ko xamu doon mais kii si doomi Sëriñ Saliou doomi Sëriñ Tuubaa la kii mooy Sëriñ Saliou ngeen gisoo ko yéreem yooyu rek benn côté ngeen gisoo ko yéreem yooyu n'est-ce pas oui c'est ça la réalité alors qu'il est anéanti dans Dieu il est dans l'anéantissement de l'anéantissement moom daa sey si yàlla donc loolu mooy Serigne Salih donc wax si moom dana gudd mais xam na ne daal dans le domaine de la médecine c'est un grand professeur d'université c'est le professeur des professeurs parce qu'il a soigné des gens comme moi et comme mon ami Cheikh Béthio ak yeneen ak yeneen ne mhm. exemple yooyu rek laa la jox